djuboru ko baxul mukk ci lu ñëpp moom ci lu ñëpp moom djuboru ko baxu ci mukk ba na rek ah wal baladu tayyib yakhruju nabatu bi idni rabbi wal ladhi xabus la yakhruju illa nakida yàlla wax na te lamu mu ci jublu ñëpp xam nañu ko